ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بوكي تالا الأربعة ñaar fukki fan ñeent ci weeru rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak ñeent dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci àllarba ji rafetul àllarba ju nekk nag des cee tere ku ca watu wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga nu soppaloo ak ngëm yàlla na nga ko rafetal sunuy xol yàlla na nga ñu bañloo ak weddi akuk caay-caay akuk moy allahumma habib ilayna al imaana wa zayyinhu fi quluubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyaan xadiisu bis bi yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gént gis ma ciy nelaw gis na ma ndax saytaane mënumaa niru nirul xaddis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fi lmanaami faqad ra'aani fa inna sheytaana laa yatamassalu bi muttafaqun alayh man